juróom benni fan ci weeru février mooy bis bi nga xam ne àdduna ci boppam mooy sàkku ci kenn ku ne ci ñun mu bañ a jël téléphone portable di ci woote wala mu ci wuyu journée mondiale sans téléphone mobile fii ci Mbàkke moom askan wi xalaatuñ ko tey ëllëg waxi nopp. waaw tey moom bàyyi moo ci woon xel na wax dëgg yàlla waaye xam naa loolu moom yombul moom ndax téléphone léegi daa bokk ci dund gi dafa bokk ci loo xamante ne bi tey jii dem na ba mënatuñ koo ñàkk. ndax yu bari yi nga waroon a def tey ji wala nga war koo doxi téléphone mën na la ko lijjanti moo tax xam naa bokk na ci loo xam moom tey moom ñàkk a yor téléphone moom léegi loolu mënut a nekk a yor nekk moom non dafa solo ndax tey man su ma soxla woon Dakar waroon na war a mu daan bind ay lettre di xaar dem ci poste ba wala moo daan wax damay dem wooteel wala ma yónnee wala ma joxe ci orel bi léegi lépp téléphone bi fi ma toog man na ma ko defal photo sax su ma ko soxla tey comme man ku mel ne man ouvrier laa tey su ma soxlaa tey photo wala ay dimension sax ñu jël ma ko bat ba Saint-Louis mën nañ ma ko jël envoyé ko sama téléphone ma daal di ci jot léegi du ma ci yónnee du du ma ci sonn. journée mondiale sans téléphone je crois que ni téléphone jamono ji toog benn bës boo xamante ne yoroo ko ak niñ ci mel jàpp naa ni doon na loo xamante ne du doon lu yomb donc yaakaar naa ni journée mondiale sans téléphone ñi koy respecté ci àdduna si du mën a du du mën a bari surtout que c'est devenu maintenant une nécessité. pratiquement transaction yu on le fait maintenant avec le téléphone sans se déplacer bëri de tamit euh, démarche yo xamante boko beaucoup de résumé di ci def ay déplacement lu gat gat ay ñaari waxtu ñetti waxtu maintenant tu peux le faire en moins de 3 minutes sur place kon donc journée mondiale sans téléphone góob dina am succès biñ ci xaar. journée mondiale sans téléphone ah non loolu moom yaakaar naa moom c'est impossible quoi parce que ñun ñi ngi nii xëy nañ nekk si téléphone yi te chaque jour dañuy xëy nekk si téléphone yi di jaay tamit journée mondiale sans téléphone moom d'accord uma ci man moom vraiment yaakaar naa ne loolu moom mënul nekk koi ah parce que kii jaay téléphone bu xëyee du dem si ay téléphone am jaayi ko ki am soxla woote téléphone du jël téléphone am woote ah ki am soxla woote téléphone day jël téléphone am woote tamit kii jaay téléphone day jaay téléphone ki téléphone am réer tey day dem jënd ji téléphone mais loolu tam xanaa bi gars yi di xalaat journée mondiale sans téléphone xalaatuñu woon loolu ah waaw man loolu moom gaw ma ko quoi. Eh, téléphone liñ si liggéey bëri na téléphone njariñ bi mu am si si population bi ëpp na téléphone mënul ñàkk si nit ñi waaw mënul ñàkk léegi kuy dem boo yorul téléphone sax da nga am problème su sa téléphone réeree nga am problème fi nga taxaw. soo yoree téléphone nag am crédit foo mënti dem mun ngaa bañ am benn problème quoi ndax téléphone mooy mooy li lay gindi quoi waaw moo lay gidee ba nga àgg fi nga bëgg a dem c'est ça boo ko yorul nag da ngay am problème dund mag ñu njëkk ña ngay dund di yor ay di bindi lettre wala ngay am gën a xam koo dajeel di laajte affaire yooyu noonu yooyu xewi na quoi. Eh, loolu mën naa wax ni lu imp lu impossible la mun ta nekk ndax jamono ji dem nañ ba téléphone bokk na si ñun. dem nañ ba tamit li nga xam ni moom moo di connexion bokk na suñu nit bu xëyee fi mu a ak ku mënti doon yorul téléphone euh, day sax am problème rawatina bu amul connexion fu mu mën di jaar jënd ji ko dana ko dem wuti ji ngir connecté ndax boo xoolee tey fi mu toll nii euh, niñ koy waxee wàllum technologique dafa dox te tey boo xoolee téléphone li mu mën a apporter nit ki si lu bare bari ndax nit nit ñaa ngi toog seen place téléphone la ñuy liggéey lu su mel ni euh, WhatsApp tey say marchandise si koy mën a jaarale nit toll Europe gis ko. say statut mu mën ko xol gis ko euh mën see ñew def commandam yoy yep motax téléphone dal tay ni ma lako mëna mën dal dem na ba mëna bok ci ñun ba dugg ci ñu li nga xamni moy suñu dundu c'est normal parce que lolu dana tax sax nit ñi dañuy gëna mëna réfléchir xol sen temps bu ñu concentré wu ci téléphone parce que téléphone bi jël na temps bépp té dundu bi gatt na aduna bi gatt na té du la jural dara lu am njëriñ parce que ñu utiliser ñëpp duñ ay businessman non journée bi respecté naa ko portable bu ma ko mënoon bàyyi sax dama koy bàyyi fixe yi amoon yu njëkk ya wala lettre yi wala télégramme yi moom moo gën lu xew léegi xam nga communication bi sax dañu ko war a wàññi communication bi ni ñu communiquer ëpp na parce que communication bu bëri day yàq lu bëri day indi détail day créer ay détails source wàllu sëy yi nag lu mu yàq sëy kenn xamu nu mu toll. tey laa ko doo ko yéeg sax tey jii laa ko doog a yëg waaw waaye journée mondiale sans téléphone moom lu difficile la.

ah loolu moom <laughs> doy na waar man vraiment loolu moom mënuma ko quoi parce que téléphone yi ci lay liggéey quoi waaw ci laay liggéey ci bu taxawee rek sama business day taxaw quoi oui ah ah man di wax dëgg yàlla dunduma ko moom vraiment dunduma ko quoi parce que ci laay liggéey. mu mel ni kon téléphone portable moom dem na ba bokk ci dund doomu aadama yi kenn mënatul toog benn bisu yàlla bu nga xam ne jëloo sa téléphone di woote wala nga wuyu askan wi sax laaj nañ leen bu fekkoon nguur gi ci boppam dafa wax ne juróom-benn fan ci weeru février bu excédé bu nu séenee kenn ku yore téléphone di woote wala mu wuyu danañ ko teg loxo askan wi wax ne jaral na leen ko ndaxte ñoom mënuñu bàyyi seen téléphone ginnaaw. xam naa dana métti xanaa dañ koy jéem rek comme loi la loi moom loi la dañ koy jéem rek waaye xam naa moom dana métti waaye dama ne jàpp naa daal loolu moom yombatul la jëlee ci réew mi set loi mom gëw ni man non non du ko respecter parce que cette loi aussi gëw ni na am succès biñ ci xaar pour nit ñi mën ko respecter non du yomb actuellement parce que yaakar na ni téléphone bokku na ci dundu doom adama yi bokk na ci li nga xamantene ne conflit yi rek la bari na sur place bu ñëk da nga daan wut euh, fas nga jox ko lettre mu daw mu dox lu mat ay kilomètres pour yóbbu lettre ba nga tok sur place bin li ngay bind wala wo ki ngay wo wax ak mom sur place résumé ko. gàttal euh, temps bi nga am succès bi ngi xaar am réussite bi ngi xaar atteindre son objectif je crois que le journée mondial sans téléphone du doon lui connaître ben succès bu nga xamantene ne mën nañ ko ci xaar. ah waaw buñ ko décrété won def ci loi kay danañ ko appliquer waye bu boobaa dañuy tëj suñuy magasin duñu xey rek ku sa téléphone reer nga muñ xana ku am soxla tok di xolé ah moo fi parce que tamit buñ ko décrété def ci loi so jalgatee loi bi mën nañ la andil ay problème bu tek nañ nit ñi ay coono quoi. kon lolu mom duma la ko neub njitum rew mi lañu ñu japp ndax parce que mom si bopam sax mom lu ci bari walum dem fu joti wu fa téléphone lay mën di am di woté ay ministre ay ñeneen ñu di doon ñukoy koy liggéeyal ñu bari mënut a tey kenn ku ne mu yor autom dem fa di la wax la mu bëgg non non téléphone lay jël woté si ngir ñoño doxal lola téléphone dal fi mu ni ma la ko mëna waxé mom moy dem na ba si euh, yëf yi dundu Euh, nit ñi kenn mënatu koo jëlee si nit ñi kooku moom c'est impossible. wote luwaa kay moom mais buñ ci woote woote luwaa kay mooy nga nga interdit ko benn rek moo gën int interdit benn yoon nañ def téléphone bi nga xam téléphone fixe moo am ci kër nga xam ne boo ci bëggee wax soxla dong nga tax nga ji ci wax boo ko rek nit ñi fa téléphone portable moom porté la tudd te foo jëm da ngay ànd ak moom te pour nga aaye ko nit mom moom mënta ne loolu mënta ne moo moo dëkk taxul ku wopp nga rendi ah waaw bu luwaa moom bu dañuy dañ koy appliquer rek waaye nag bu dana métti trop parce que du ca ba sax ñoo ko yëkkati il faut ñu laal téléphone mënut a ñàkk. kon ci tënk moom day mel ne journée mondiale san téléphone mobile moom amul benn dayoo ci biir Sénégal rawati fii ci Mbàkke waaye nag mënees naa samp laaj ndax téléphone du yàq lu bare bari ci askan wi way jur yi doon waxtaan ak seeni doom fi mu toll ni kenn ku ne li ngay xëntoo def mooy boo wàccee jël sa téléphone di connecté.